considération man El président dootuma ci événement wu patriote. Nabi... Vision sama gars El Président yow nga ni bu ne ci euh, patriote la considéré wul la ñu la euh, patriote bi bi ngay ñëw di adhéré wu ci projet bi kenn ñëwul seen kër ne la yaa xool ba mu doy nga ñëw adhéré wu sa compte TikTok bi bi nga koy ubbi di ci wax kenn woowu la ne la kaay wax ci yow yaa xool ba projet bi doy la nga ubbi ci di ci wax soo demee ba gis naka yow gisatoo ci sa bopp am nga droit nga tëj ko boobu ba léegi kenn du ci wax yow ñaata yow ñu la dàqoon xeex foofu ci projet bi ñi ngi woon foofu teew te considération bii nii ngay nekk nii tax ngay kaas ñoom lijjanti ko li leen ñor mooy projet bi yow danoo mën yow patriote bu nekk ñu bëgg la considérer foofu noonu yow rek yaa doon yow yow population boobu noonu toog yow ñi la dàq xeex ñoo fa nekkoon di wàcc ci terrain bi di ko rayante kenn laaju ci considération yow lan nga bëgg képp ku doon xeex ci projet bi ñu jox la ko ñu considéré la ñëw jox la loo loxo félicité la affaire yooyu noonu yow ñaata millions de personnes ñoo doon xeex ci projet bi ngay ñëw di ñu sonal ak naan ñu ay suree nii lan ñuy def nit ñu def démb danoo fristé wu lan lan la def danoo woote patriote yëpp a wuyu ñi fa wuyu donc taxaw noonu mala sa waay di yuuxu taxaw ci giri yi barrières yeeg affaire da leen gën yow lan nga bëgg ñu woola ci bi kaw kaw kaw podium bi nga toog di wax na yow yow ñëpp danoo mën a nekk ci kaaf gi yow golo yi sax danoo am njiit li ñu intéressé du ay considération li ñu intéressé mooy projet bi ñu xool nan lañ koy organiser xool nan lañ koy téye sauver ko ñu réussir ko mais lii ngay wax nii du wax yow nag bi ngay ñëw di adhéré wu ci projet bi kenn woowu la bi ngay ubbi sa compte TikTok di wax ci projet bi kenn woowu la ne la ubbil TikTok sooy demaat sooy demaat tamit kenn du la téye ngay xataraayu dañ lay bàyyi nga dem. affaire bi bëri ko ci mbartal la nga toog day dem nga dem day dem. ngay toog di jéem a am looy wax ni lan mooy considéré yow lan nga bëgg yow rek yaa xeex yow ñu la dàkka xeex ñi ngi toog foofu ñu la dàkkoon xeex ci projet bi ñu ngi woon foofu noonu lijjantiwuñ sax ay affaire considération en tout cas nañ dégg message bi jàll rek ñun message bi moo ñu intéressé ay considération yooyu noonu yëpp ah, intéressé wuñu lii moo leen yàqu quoi da ngeen di def dara ñu foog ne pour dëkk bi moo tax ñuy def ko ñu foog ne yow da nga koy def pour say propre responsabilité wala yow danga nga koy def ngir yow bëgg sa réew mais yow yaa ngi koy def di ci xaar benn considéré bu ñu la ci wara a pour lan lu tax ñu lay considéré yaay kan yow da dàkk xeex nit ñi ñu la dàkk xeex ñoo fa nekkoon la ñu sonal waay demal sa waay tëjal sa compte TikTok demal génnal ci at génnal ci patriote yi ba xam yow dañuy dem di la téye ngay xatraay affaire yooyu noonu da ñëw da ciy wàññi dara yow yokkoo ci wàññiwoo ci bu ñu sonal. président salaam salaam les patriotes ziar naa leen di leen jox seen wàccuwaay bu baax message bi. salaamaaleykum patriote maa ngi leen di ziar baax di leen nuyu nuyu maam Diarra Guèye patriote bu mag bi am naa vidéo bi sax si moom laa gisee ma gis mu partagé ko euh, voilà muy waa ji nii patriote la xam naa ko tur lay xatte grand. Euh, wax dëgg yàlla comme li nga wax ku ne dañ ko nangul xalaatam euh, xañ na man comprendre mu li nga bëgg wax mais maa ngi koy commenté mais si nga jëwriñ président Ousmane Sonko nee nga maanaam boo gisee mbooloo bi yëpp ñëw fa kenn taxul président Ousmane Sonko moo tax loolu wedduma la ndax lépp mun naa wax ne moom la mais nag kenn mënul lépp lu kenn li li ñuy wax lu kenn mën ñaari ko dàq si nga président Ousmane su fekkoon euh, maanaam li mu def ci politique yëpp bu fekkoon moom ak jeunesse bi kese kese kese la amul ñu nekk ci ginnaawam xaj na li fu mu yegg si ni mën na fa bañ a yegg nañu nañ wax dëgg te dinaa la nangul sax xalaat parce que dañoo nekk ci démocratie mais copain te yow maanaam euh, ñëpp mënuñ tolloo. di la koy xamal mooy yow yow si bu ma juumalee. pourtant dem yow dañ la placer fu bax yaa ngi noonu toog fu fu fu normal aisé pourtant man meuna gëm né amna ño xamné peut être xaj na ñoo la gëna a sonn ci projet bi mënuñ jege sax président Ousmane Sonko aduna mo démé non des fois mën ngeen bokku ma ngeen bokku même endroit wala ngeen bokku ci même li ngeen di ki am ci lo amul xaj na sax peut être yow ya koy gëna a sonn wala li nga li nga dajew moom daju ko aduna mom la yalla yàlla non sa ngeen président Ousmane Sonko gatché ngaalaama la koy wax de mais ñi nga xamné ni aussi ño ñoy collaborateur am la laa leen di wax ci nga ngañ dem Touré bi ni bi nga xamné mo mo jité GPS eh, yalla xamna na ne ku warta ku man dama japp ne patriote yëpp ñoko amal njukkal patriote yëpp nak ñoko amal njukkal manam kiiwuma li pour tontu la mais dama bëgg rek pour gëna yaatal pour nga gëna xam xamna xam nga sax mais yow li nga wax ni ba tey man man seetaan naa vidéo mais comprendre exactement yow li nga bëgg a wax président man songo man dama japp ne collaborateur mi manam buñu yok rek kenn wañu ci en commençant par ngeen dembe Touré mi lu nekk lañ ko ci def deug la maam projet bi aussi comme le président wax démb ñepp ñepp mënu tok ne carrément euh, man lima ma ci bëgg dama ko ci wara am wala man nangam nam non non copain yow yaa ngi fu normal yow dañ la dugal ci bis enceinte bi nga xam ne fa fële ñoon defee conférence bi mais am na koo xam ne nii peut-être moo la gën a sonn ci projet bi mais pourtant jegewu fa maanaam pro li ñu li ñuy xeex aussi man man du ma comprendre ñu bëgg a xeex benn affaire ba pare retourné waat bëgg a xeex son contraire. damaa comprendre néew ma maanaam damaa comprendre dara ci li ngay wax parce que man je vois yaa ngi attaqué ngeen ngeen Demba Touré indirectement te mën na ci bañ a ñàkk si nga li ñuy xeex ni aussi suñ ko xeexee ba yegg si fii bëgg di bëgg a contredire suñu bop aussi day day compliqué ta président Ousmane Sonko dëgg la li nga wax nga ne patriote yi képp ku fa dajé rek président moo tax dëgg la mais man gëm na nag ngañ dem tour tay su woté won même bu féké melul na né dina am ñoo na ay patriote lan ta dina dem wuyu ji ta ngañ dem ba Touré président Ousmane Sonko ben lañ parce que lim bëgg mom le président bëgg donc amna lo loo ni aussi suñ koy wax nañ koy xolaat bu baax man li nga wax ni yalla xam comprendre ma ci dara salaam salaam gars yi maa ngi ñëpp di ziar ñëpp di ku dikkum nag di nuyu sama mbokk tax di di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Euh, sama vidéo yi bii nag kenn ma ko tax a jóg muy sëñ Bada Keman sëñ Bada Keman gis nga li ngay def nii amul benn sens nga dem ñu lay fay comprendre nga di la wax loolu loo xamante ne yow maîtriser wu ko. si discours président Ousmane Sonko boo xamante ne yow maîtriser wu ko xamoo lu xew. dañ na fay nga xëy di di def sa life di yàq pros di ko yàq lu la sa ak lu la neex comprendre nga jël ay nit di leen yéege ci life ñu ñu sang président so ko di ko di ko di ko wax lu nekk gis sa sëñ Bara ma pros tepp ku yàq ay waxam di ko defar sa sëñ Bara dama bëgg nga arrêté arrêté nga jël Seydina Mouhamed gis sa fan yépp yaa ngi jël photo pros ak photo euh, kii ni ñu koy waxatee euh, Pape Mbaye te bu ma ko tuddee sax tooñ ko di ko di ko di ko kole di ko def di di yàq plos lu la neex ngi sa ñii di yëg sa waa APR yi di yëg sa laaj di la jay bëggaluñ la lu baax ndax tey bu ñu tëjee ci kaso bi nu ñoom ñoo fay fekk di may sans ko ko bàyyi jaxata dañ seetaanoon marsamaak yow sëñ Bada fu nga teg sa tànk teggi ko ñu nga pros sax morom ku gën a ndaw ci Pastef bi sax duñ sa morom ku ci gën a ndaw laala kaatu kër moo du sa waral côté yëpp parce que yow amoo xel sëñ Bada amoo xel maîtriser woo looy wax yow doo nit mais gis sa sa yi nga nekk nii nga war a génn sa yi nga nekk ni nga war a wan ginnaaw gis sa góor dangay am fulla am fayda am personnalité da buti liggéey dem liggéey gis sa li ngay def ni amul benn sens li ngay def ni amul benn rendement te lii nii mënoo nga mënoo cee def ba nga jël ci dara pour yow nit ñi dañ lay déglu pour yow li nga yàq pros nii nit ñi dañ lay bàyyi xel non non yaa ngi utal sa bopp loo xamante ne jour bu ñëwee ñeen ko sa kaw ngir jëm Seydina Muhammad na nga na nga jël say matuwaay jël say responsabilité bu boobaa dañ si wéet torop sax man nag en tant que sœur man maay wax ak yow te waxtaan max ak yow. Naby Vision. yaa ngi dégg damay wax ak yow si tey lépp lu munti am rek lu daan sa kaw rek na ko jéem a assumer say responsabilité parce que yaa ngi lii sa yaa ngi taal sa live di wax loo xamante ne xamoo ko maîtriser wu ko di nga pro képp ku yàq ay waxam ni nga ko defaraat ndax li mu wax dafa neex dafa neex a dégg yéen yéen ñi nga xamante ne ak genre journaliste yi nga xamante ne seen intérêt personnel moo leen tax a jóg damaa bëgg ngeen bàyyi waxu jaam bi ngeen yàq te démb bari ci Seydina Mouhamed nii laa ko waxee grand théâtre soo ñenn mbokk patriote yi ma nekk suñu gisee seen vidéo bi maa ko dee suba dinañ interpréter waxu président Ousmane Sonko nañ ko sosal di ko wax lu nekk xanaa yow Diomaye du du président loolu boo ko waxee waxu woon na sëñ Bada gis sa tey Pros dafa wax lu leer nee na